آمين آمين من هذه العالم إلى صراط المستقيم ولي الله مسلم صلاته وهو من تولى فقد أصبر الله لا إله إلا هو حفظه وكفره اللهم صل على سيدنا محمد

قول الأمين إنا زدنا ربي على صراط مستقيم من ولي الله مسجد الكتاب وهو خير الزارعين من تولوا فهو مسجد لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق آمين آمين آمين آمين asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu ah, li may wax lu gàtt la rekk ci taxawaayam ñun ñëpp bu nu nekkee dëppi démb mu ngi ci dànk jullikaay di bale di tànt di rafetal di nettoyer. moo ñi mu ko àndal sëriñ baa ngi leen di sant di leen gërëm di leen encouragé ci liggéey bi sëriñ bi mi ngi sant sëriñ bay Ñang bu Baay Moor Ñang nga xam ni fu dëkk bi soxlaa sonorisation rawatina dànk jullikaay wala jumaa ji mu ñëw renforcer li fi nekk taxaw ci taxawaay bu mat sëkk ba message bi ñëpp mën koo dégg sëriñ baa ngi koy sant mi ngi koy gërëm ak aale euh, aale di jarbaatu sëriñ bi mhm. nga xam ni fa tabaarakallaahu ingénieur bâtiment la di technicien di ku yàlla baaxal mu gëm kër gi bëgg ko di mbokk di jarbaat sëriñ baa ngi koy sant ci taxawaayam fa tabaarakallah sëriñ Mass Mbeng ak waa UGC sëriñ Mbeng ak mhm. waa mhm. moom itam sëriñ baa ngi koy sant di sant ay magam yépp sëriñ Góora Mbeng ba ci fa tabaarakallahu ñi mu bokkal ñépp eh, ci taxawaayam lépp loo xam ne lu mu root la indil na ko canaba muy njariñu canaba te ñun ñëpp loolu teg nañ ci sunu bët sëriñ baa ngi koy sant mi ngi koy gërëm di ko tëjee nag suñu baay buubu sekk di ko tëjee nag suñu waajur ñun ñëpp hmm. di suñu baay buubu sekk hmm. sëriñ baa ngi koy gërëm ngi koy gërëm di ko bàyyi xel di ko bàyyi xel di ko ñaanal fan ñaanal fan wu gudd ak sutura ak sutura ñooñu di sàkku ci moom itam ñaan ñooñu hmm. yooyu rek. yooyu rek. laa doon jukki. la sëriñ bi ne woon nañ ko dabaatal jukki leen. asalaamaaleykum asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon nu jige sëriñ bi ñun ñëpp nu bokk déglu ñaan yi nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi. déglu ci ay baayam ak بسم الله الرحمن الرحيم كلما أوقدوا نارا للهرب كلما أوقدوا نارا للهرب أطفأ كلما أوقدوا نارا للهرب أطفأها كلما أوقدوا نارا للهرب أطفأها كلما أوقدوا نارا للهرب أطفأها كلما أوقدوا نارا للهرب أطفأها كلما أوقدوا نارا للهرب أطفأها كلما أوقدوا نارا للهرب أطفأها كلما أوقدوا نارا للهرب أطفأها كلما أوقدوا نارا للهرب أطفأها كلما أوقدوا نارا للهرب أطفاله كلما أوقدوا نارا للهرب أطفاله كلما أوقدوا نارا للهرب أطفاله كلما أوقدوا نارا للهرب أطفاله كلما أوقدوا نارا للهرب أطفاله كلما أوقدوا نارا للهرب أطفاله كلما أوقدوا نارا للهرب أطفاله كلما أوقدوا نارا للهرب أطفاله كلما أوخدوا نارا للهرب أطفالا وكلما أوخدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوخدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوخدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوخدوا نارا للهرب أطفالا وكلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا أطفالا كلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوقدوا نارا للهرب أطفالا كلما أوقدوا نارا نارا للهرب أفعل كلما أوقدوا نارا للهرب أفعل كلما أوقدوا نارا للهرب أفعل آه، ولن يجعل الله للكافرين سبيلا آه، على المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم <coughs> فاخسوهم فسادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنهمة من الله وفضل لم يمسسوا سوء وتبعوا رضوان الله والله سوء فضل عظيم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 noo ngi sant mbindeef yi. nee na mbindeef yi yàlla yi jaami yàlla yi na ngeen seede ne mi ngi leen di sant. maa ngi gën a santaat nag sama njabootu bopp. nee na mi ngi gën santaat nag njabootu boppam. mooy tariixa bi. nee na njabootu boppam mooy tariixa bi. yàlla daf maa dimbali. nee na yàlla daf koo dimbali. maa ngi ko koy sant. nee na ndimbal li ko yàlla dimbali mi ngi koy sante suñu boroom. ndax yàlla daa dogal. nee yàlla dafa dogal. ñi ma yilif ñi ma yilif yilifu nee na yàlla dafa dogal ñoom ñépp ñu yilifu ku ci nekk nee na kenn ku nekk ci ñoom xool naa la nee na xool na la. xoolaat la. xoolaat la. ba mu wër ma ni. nee na ba moom wóor na ko ni. kii yelloo nag cant. nee kii mu jàkkaar lool par benn di di leen vérifier kenn ku nekk si ñoom yelloo na ak cant bi. yelloo ngërëm. yelloo na ngërëm. yelloo nag ñaan. yelloo it ak ñaan. yelloo na itam. yelloo na nga wóolu ko. nga wóolu fu mu nekkul. fu mu nekkul loolu nag. nee na loolu bu amee ci nit. nee bu ko yàlla defee ci nit. ak njabootam. ak njabootam. war naa santaat yàlla. na bu ak njabootam melee noonu yàlla def ko kon moom li ko war mooy sant yàlla. kon maa ngi sant yàlla. nee kon na ngeen seede ne mi ngi sant yàlla. penc mii nag. nee na penc mii nag. ku yàlla dogal. nee na képp ku yàlla dogal. Mm, mm, mm, muy sa eh, eh, sa kilifteef. na képp ku yàlla dogal penc mii sa kilifteef aju fi. nga ñëw fekk mbindeef yi mel nii ñu mel. nee nga ñëw fekk mbindeef yi ñu mel nii leen yàlla melal. war ngaa sant. nee na loolu war na cee sant yàlla. ilimaan ji nga xamante ne. nee ilimaan ji nga xam ne. mooy jiite. mooy jiite. gërëm naa yàlla. nee na gërëm na yàlla. gërëm ko. gërëm ko. di ko ñaanal. nee di ko ñaanal. ndax penc mi. nee ndax penc mi. li alalam. nee na lii alalu penc mi. lii taaram. lii taaru penc mi. lii tiitaram. lii tiitaru penc mi. muy toog fi di jàng alxuraan. mooy ñu toog fi di jàng alxuraan. di ko firi. di firi alxuraan. Euh, loolu da ci sëñ Seexu da cee taxaw. te nee na loolu nag imaam muy junj di sëriñ Seexu Amadou sek, ak ñi koy dañ cee taxaw taxawaay bu mat sëkk. am na benn waay boo ne nee am na benn ma nga dëkk kër Aliou Kan nee na ma nga dëkk kër Aliou Kan barki démb daa ñëwoon fii ci kër si ñaana nee na barki démb dafa ñëwoon fii ci kër si ñaana waaye daa dolli sama mbégte nee na waaye kat kooku fi ñëwoon dafa waat sama mbégte am ku ma ko laaj am ku ma ko laaj mu ni ma moom da ñëwul mu ni ma moom day ñëwul waaye gàllankoor a ko dab waaye gàllankoor a ko dab waaye eh, fabu woon na waaye kat fabu woon na waaye moom day waaye moom day ah prix yi de bari na ci àdduna. prix bari na ci àdduna rajo yi bari na ci àdduna. rajo yi bari na ci àdduna. waaye sëñ Seexu daal. waaye sëñ Seexu daal. lu mu wax. lu mu wax dégg na ko. dégg na ko. man ne ko ah dolli nga sama mbégte de. loolu nag lu la ba tax na mbégteem dafa dolli kuwaat ci sëriñ eh, sëñ Maxtaar Seck. nee na sëriñ maxtar Seck bu sëriñ Talla Xaar. yéem naa ko. nee na na ñëpp seede ni yéem naa sëriñ Maxtaar. gëm gërëm naa ko. nee na ñëpp seede ni sëriñ Maxtaar gërëm naa ko. gërëm kër ga muy xëye na ñëpp xam ni kër ga muy xëyee te bopp kër ga di sëriñ Ibrahima Seck gërëm naa leen. gërëm naa leen. gërëm naa leen. ndax wax dëgg yàlla. ndax wax dëgg yàlla. maa ngi ñaan yàlla. nee bokk na ci li muy ñaan yàlla. yàlla mi ko may wér. nee sunu borom mi nga xam ne moo la may wér. ba ñu umee. ba ñu umee. ba jataay bii. ba fii toog. mu taxaw tem. neena nga taxaw tem. ci nafila gi. ci nafila gi. di di di ko jité nee nga di ko jité julli julli ge julli gee. Eh, nafila nafila safa witar safa ak witar ñaan. ñaan joxe julli njëli. yi julli yi dara manki wul. nee lepp nga taxawé ko ba dara manki wul. bobu sak nee sak bobu nga defal kër gi. Eh, eh, defal nga ko sa mam nee sa mam Seydou Moudiaye mam Ahmed Dassé nga ko defal. defal nga ko sa maam. defal nga ko sa maam. defal nga ko sa maam. defal nga ko it sa maam. defal nga ko sa maam. defal nga ko sa kon nag alhamdulilah. nee fa tabarakallahu kon nag. Eh, mooy alhamdulilah. ñi nga xamante ne. nee ñi nga xam ni. ñoom itam ñooy noddu. ñoom itam ñooy noddukat yi. ñooy liqaab. ñooy liqaab. ñooy soññe. ñooy soññe. maa ngi leen di gërëm. nee maa leen di gërëm. bu ilimaan yi taxawoon. yi bu te ñoom kenn dikkut. am kat. dañuy am kersa. kon ni ma sant ilimaan yi. kon ni ma sant ilimaan yi. ni laa leen sante. ni laa sante. ñeen ñi nga xamante ne. ñeen nga xam ne. bu ñu noddee. bu ñu noddee. kenn ku ne. kenn ku nekk. lam doon def. lam doon def mu teg ko ci suuf. ko ci suuf. daa di waaj. daa di waaj waaxu ñëw. waaxu ñëw sant naa leen. sant naa leen. gërëm naa ñëpp. nee na gërëm na ñëpp. jataay bi. daa mel nii. waaye mm, sama xol. waaye sama xol. li mu ëmb. li mu ëmb. ci cant. ci ay cant ak i ñaan. ak i ñaan buñ fi yendu woon. buñ fi yendu woon. ba ngoon. ba ngoon. Euh, euh, euh, du du jeex. nee sëriñ bi nee na fii ñu toog ba ngoon ñu yendu fi. nii ma sant wax ay cant par kenn par kenn tam ni ma ni ma sant ilimaan yi nee ni mu sant ilimaan yi sante ko noddukat yi sante ko noddukat ko ñiy wuy si ko ñiy wuy si ni laa sant sama doom ji ni laa sant sama doom ji muy sëñ Cheikhou Amadou muy sëñ Cheikhou Amadou di porte parole fa tabarakallahu te ñun ñëpp lu bokk déglu waxtaanu tayam discours bi mu def ñun ñëpp xam nañ ni bàyyiwul dara te matale na fa tabarakallahu mbooloo mi. nee mbooloo mi. li li jataay bi yàgg yàgg. li bi di yàgg yàgg. kenn sëqatu nee na kenn sëqatul. kenn wanewul yàkkamti. kenn wanewul yàkkamti. kenn wanewul dara. kenn wanewul dara. lu dul daal. lu dul daal. mi ngi taw. mi ngi taw nga taaj sa paan. taaj sa paan. na teg. ni teg di ko déglu. ko déglu mu di muy muy sotti. muy sotti. ngay nga ngay jariñoo. ngay jariñoo di jël di jariñoo. loolu yàlla na gën a jëm kanam. nee daraja yonent bi wàcce na ba daal gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp sëñ Alsaan ñaan sëriñ Alsaan ñaan ñu moom laa bëgg a bàyyi gi nee na gi daf koy ci bu ñu ñaan yi mu jotal mu jotal wàllam wàllam barki barki ah, am ñaari am ñaari wala ñett wala ñett yo xam ne yii yoo xam ne bu ñu sëlmalee ajjuma dugg ci biir kër gi dugg ci biir kër gi moo yore waxtaan wi moo waxtaan ah, sa sa ñi nga ñi nga nekk ci bitim réew. ñoo nekk ci bitim réew. dañuy yónnee. dañuy yónnee. naan seen ajjuma ji. naan seen ajjuma ji. noo ko bokk. noo ko bokk. noo ngi teew. noo ngi teew. ndax li li li li ngeen doon def. li ngeen doon def. dara umpu nu ci. dara nu ci. kon noo ko bokk. kon sëriñ baa ngi fotox lu foofu itam di gërëm ñi nga xam ni ñoo nekk ci bitim réew. maa ngi koy di ay taalibe di bokki taalibe di ay doom di ay jarbaat. sëriñ baa ngi leen di gërëm. ci teg gi ñu teg ba cana ba di leen ñaanal yàlla fa tabaarakallah. maa ngi gërëm ñëpp. mi ngi gërëm ñëpp.

tubaarakàlla dëkk yi nga xamante dëkk yi nga xam ni dañoo wër cene ba dañoo wër cene ba ten bokk njombare ten bokk njombare noo ngi leen di gërëm nee na dëkk yi wër cene ba te bokk lu nuy bañ te nu ànd ceeg ñun bañ ñu ngi leen di gërëm noo ngi leen di sant noo ngi leen di sant noo ngi leen di ñaanal noo leen di ñaanal léegi daal léegi daal wax ji moom wax ji moom mënta jeex mënta jeex waaye sunu xol daal sedd nee na xolam dafa sedd. kon sama njaboot. nee na ak njabootam. lu ma ci waay dollee. lu ma ci waay dollee. ci gën a seral sama xol boobu. ci gën a seral sama xol dong la. maa ngi koy ñaanal. maa ngi koy ñaanal. ci saayir. ci saayir di ñaanal. di ñaanal ci baati. ci baati. barikalla jërëjëf kon nag nga jox kàddu gi Sëriñ Alsaan. Sëriñ Canaba Baye Sëriñ Canaba Sëriñ Abdou Rahim imaamu ratib Sëriñ Cheikh Amadou Seck nee mi ngi lay nuyu di la ziyaara di la wax ni. nee na naa la wax ni la. jaajëf jërëjëf. yal na ànd ak jaajëfi suñu borom. nee na jërëjëf jii nu ànd di la ko wax yal na ànd ak jërëjëfi suñu borom. dafa am loo xam nee am na loo xam ni. asgor mënu ko. asgor mënu ko. te du ko jéem. te asgor du ko jéem. rawati kilifa. nee na rawatina kilifa. kilifa gën a tële. nee na kilifa moo ko gën a tële. du ko xalaat. kilifa du ko xalaat. waa di ko jéem. kilifa it du ko jéem. kilifa ci boppam. nee kilifa ci boppam. yàlla mi dul juum. yàlla mi nga xam ne du juum. moo sàkk kilifa. nee yàlla moomu moo sàkk kilifa. waaye moo téye kilifa. waaye moo téye kilifa. cana ba sekk. nee cana ba sekk. diine yëpp ndigal ko yor. nee na diine yëpp nañu bokk xam ni ndigal moo ko yor. dund ajoo ci dund ajoo ci ruux. noonu la diine di dunde ci ndigal. noonu la diine di dunde ci ndigal. Seydina Omar. nee na Seydina Omar. bi natt bi ñëwee ci moom. nee bi natt bi ñëwee ci moom. fajar gi mu war a faatu. gi mu war a faatu. te moo taxawoon taxawaayu Seydina Rasulullahi. te moo taxawoon ca jamono booba taxawaayu Seydina Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. bala ñoo liqaam. nee jamono booba bala ñoo liqaam. ndigal day ñëw. ndigal day ñëw. balaa ndigal a ñëw. balaa ndigal a ñëw. sang bay topp sàppe yi ba mu àgg. sang bi day topp sàppe yi ba mu àgg. ba lépp jub ni tekk. jubbanti leen kenn ku nekk mu taxaw loola fa nga war a taxaw ba lépp ni tekk. mu ni bismillah ñu liqaam. mu soog a wax ni bismillah ñu soog a yëkkati iqaam. bi yokkute amee. nee bi yokkute amee. day am ku jóge ca bopp ba. day am ku jóge ca bopp ba. imaam jóge ci eh, seen kanam. imaam jóge ci seen kanam. di rangale nit ñi. di rangale nit ñi. di jubbanti. di jubbanti. Seydina Omar foofa la nattu ba ñëwee. Seydina Omar foofa la nattu ba ñëwee. la xew xew. la xew xew. waaye moo yor ndigal li. waaye moo yor ndigal li. dañuy diw. dañuy diw. jiiteel jiiteel. loolee moo fi ne ba tey. nee na loolu nag ba léegi moo fi nekk. baatub seexu canaba. baatub seexu ba mooy ndigalul sa borom. mooy ndigalul sunu borom fu ñu ko déggee nan xam loolu. ku nu yàlla jox muy moom. nee képp ku nu yàlla jox. ni kii mooy Serigne Thiénaba nanu xam ni kooku mooy Serigne Thiénaba. bu jëlee kum nu jox mooy moom. nee na yàlla na yeex bu jëlee ñëpp xam ni moom la kum nu jox. tey nag yow la. nee na tey jii nag nun ñëpp bokk nañu xam ni yow la. waaye am na loo xam ne mënoo ko. waaye nag am na loo xam ni mënoo ko. doo ko xalaat doo ko jéem. doo ko xalaat doo ko jéem. boo ko xalaatul jéemoo ko itam rafetal nga ko. say kilifa def. nee fekk say kilifa def. nga ñëw dindi. nga ñëw dindi. kooku mënta nekk xalaatu kilifa. nee na loolu mënta nekk xalaatu kilifa. rawatina ak waaye rawatina nag dëkk bii di Thiénaba. kilifa yi dañ fee defoon ay def-def. kilifa yi dañ fee defoon ay def-def. te yàlla rek a taxoon. te yàlla rek a taxoon ñu def ko. yàlla indi la ngir moom. yàlla indi la ngir moom. ñu di la xamal ni imaam yi nee nañu. ñu di la xamal ni imaam yi nee nañu. ñooy say doom. ñooy say doom. sant nañ la. sant nañ la. gërëm nañ la gërëm nañ la. ñoo ñi ñu bokkal. ñoo ñi ñu bokkal. ndax li kilifa yi defoon. ndax li kilifa yi defoon. ñëpp xam nañ ni. ñëpp xam nañ ni. wéyal nga ko. wéyal nga ko waaye da nga koo rafetlu. waaye danga nga koo rafetlu. door ko wéyal. door koo wéyal. mboolem ñi jiite. nee mboolem ñi jiite. amoon nga sañ-sañub. amoon nga sañ-sañub. noppalu leen. noppalu leen. diw taxawal. diw taxawal. diw taxawal. diw taxawal. te kenn du ko ñaawal kenn du ko ñaawal. waaye ku génn dina wax waaye ku génn nag dina wax dara. kilifa gi da ñëw na. kilifa gi da ñëw na. waaye li kilifaam defoon dindi na waaye li ay kilifaam defoon dindi ko. loolu nag da koo rus jomb. lool nag rus nga ko jomb nga ko. kon njaboot gi. kon njaboot gi. ñi ngi lay bàyyi xel ñoo ngi lay bàyyi xel. yaay seen lépp yaay seen lépp. yàlla na nga gën a mucc. yàlla na nga gën a mucc. te bokk te nu bokk mucc gi. yàlla na nga gën a dëgër. yàlla na gën a dëgër. te nu bokk ko bokk ko. yàlla na nga gën a am ndam. yàlla na nga gën a am ndam. te nu bokk ko te nu bokk ko. sëñ Maxtaar mii. nee na sëriñ Maxtaar mii. yaa boole yilif yaa nu boole yilif. ñaanal nga ko ñaanal nga ko. waaye sa doom bi mu tëddee fii. waaye sa doom bi mu tëddee fii. di Alpha Mamadou Dia. di Alpha Mamadou Dia. man maa julli man maa julli si tàkkusaan. ni rekk dajeeg moom ni rekk alfa mii de nan ko dugal ci imaam yi. ma ne alfa mii de nan ko dugal ci imaam yi. dinañu amal njariñ dinañu amal njariñ. lii laa wax de. lii laa wax de. ca suba ca suba. bàyyi wu seen xaar wooma bàyyi xaar wooma. ni ma damaa bëgg ñu seet. ni ma damaa bëgg ñu seet. ñu nu dugal ci imaam yi ñu dugal ci ilimaan yi ñu jàppale la ma ne ko yow de nitu yàlla yow de nitu yàlla nga man bi may julli ji démb man bi may julli ji démb jàpp naa alfa mamadou jàpp naa alfa mamadou mu ne nañ ci boole keneen mu ne nañ ci boole ma ne ko papa Cissé ma ne ko papa Cissé mu ne ma wérul mu ne ma wérul nuy wër nuy wër ba egsi ci sëñ Pape Mourtada mu ni dëkku fi de mu ni dëkk fi de waaye bu ñëwee jàppale waaye bu ñëwee jàppale la lépp di rafet lépp di rafet. bi alfa tëddee fii. keroog bi bu jekk tëraay bu jekk. dama ni noo ñaan yàlla mu jox nu am alfa mu jox nu am alfa. mooy sëñ Maxtaar mi mooy baayam mooy kilifaam. mooy baayam mooy kilifaam. kon sëñ Maxtaar. kon ay yadaka wa nasaraka wa nasaraka. nasran nee wéet nañu man ak yow yàlla moo nu wéttali. man la yaakaar nan la ci naafila gi ma ni la ah sëriñ Maxtaar yaakaar nan la ci naafila gi su ma ko mënoon it war naa koo tële su ma ko mënoon itam nag toll naa ci tële ko war a war a jàngale ba wàcc war a jàngale ba wàcc jiite naafila gi jiite naafila gi ku nu ci aw baax na ku nu ci aw baax na yaakaar naa la ci yaakaar naa la ci bu ci nekk kenn nag bu ci nekk kenn nag nga nangu ko ci njub nga nangu ko ci ak njub ak ngor ak ngor sa baay ñaanal la sa baay ñaanal la gërëm la gërëm la nuy nag ñu nit nag ànd nañ ci ñaan gi ànd nañ ci ñaan gi maag ñi ma bokkal jumaa ji imaam yeeg imaam yeeg bilaal yeeg ñëpp cant ku gudd nag cant ku gudd nag ñaan ku gàtt ku gën yàlla bu ci gémmiñ dugg loo ci man yàlla boo ko tële. loo ci man yàlla boo ko tële. yaag la ci mag yaag ñi la ci mag. te nga noppal nu te nga noppal nu. noppal leen noppal ñoom it wax dëgg yàlla ñoom it wax dëgg yàlla. ay gor lañu ay gor lañu. li ñu man li ñu man. ñi ngi koy def ñi ngi koy def. li ñu mënul li ñu li ñu mënul. ñi ngi koy yéene ñi ngi koy yéene. di ko jéem di ko jéem. Gora Mbeng Gora Ibrahima Ndiaye Ibrahima Ndiaye. yéen ñëpp nag ñëpp nag. bu nu sëñ bi gërëmee bu nu sëñ bi gërëmee. nu dinañ leen gërëm ndax koo xam ni ndax koo xam ni mooy ñëw boo ñëwee ci jàkka ji fi nga koy fekk booy dem fi nga koy bàyyi te doo ko soññ yow bu ñu la santee moom la ñu jëkk a sant bu ñu la ñaanalee moom lañ jëkk a ñaanal kon yéen li ngeen donn yàlla bu ngeen ci tarxiis noo ngi gërëm nag jàkka ji ak waa jàkka ji dëkk bi ak waa dëkk bi amuñu nag ku nuy déglu ku dul seexu cana ba sëriñ Abdourahim Seck kon nag sëriñ bi yow it. nee kon nag sëriñ bi yow it. ayyadaka allahu wa nasaraka nasran azizan dafa am nag. nee dafa am nag. lu jafe lu jafe. ku ko yàlla yombalal mu yomb. nee ku ko yàlla yombala nag la muy jafe-jafe dina yomb. yilif diine yilif diine. sa njaboot yilif sa njaboot. am sa bopp am sa bopp. amul du sotti. yàlla nga gën a am sa bopp. yàlla nga gën a am sa bopp. gën a am sa njaboot a am sa njaboot. am njabootu diine am njabootu diine ji. ndimbalu suñu borom nag. dimbali na la ci yàlla na jëm kanam. noo ngi balu àq ñëpp. di jégalu ñëpp di jégalu ñëpp. laltaay bi waroon a jiitu laltaay bi waroon a jiitu nag. muy ñaanal mag ñi. nan ko ñaan. ñiy àggale kàddu yi àggale kàddu yi àggale kàddu yi. nanu bokk musulu seytaane. nu jàng faatiha. ñeent fukki ixlaas ak ñeent salaatul faatixe nee mag ñu baax ñii ci kanamu jumaa ji ak bépp jullit bu nekk ci biir suuf seen yërmande seen teraanga yàlla na ko yàlla dolli te nu yàgg leen a ñaanal àggalee nu bokkaat jàng fatiha juróom-ñaari ayatul kursi yi. fàllaxi ak naasi. salaatul fatiha salaatul fatiha. nee na sëriñ canaba. ak lépp lu mu jaboote ak lépp lu mu ak mboolem kilifa yi diine yi. ak réew mi ak waa réew mi. ak bokk yi toog. ak ku nekk fa mu jóge yàlla boole ñëpp. sàmm aar musal faj seeni aajo te nu fekk ko déwén kenn bañ a manqué fatiha juróom-ñaari ayatul kursi fallaxi naasi salaatul fatiha nee na sëriñ bi nee na ginnaaw loolu. fépp fu waay jóge ñëw. fépp fu jóge ñëw. sa maam daa ko def. sa maam daa ko def. bàyyee ko sa baay. ko sa baay. sa di ko def. sa baay di ko def. bàyyee la ko. bàyyee la ko. ngay ànd ak say doom. ngay ànd ak say doom. yoon woowu. yoon woowu. yàlla na gën a nooy. yàlla na gën a nooy. yàlla na gën a mokk. mboolem ñuy ñëw. mboolem ñuy ñëw. yàlla na ñu gën a mën a ñëw. ñi ñu fiy fekk. yàlla nañ leen fi gën a mën a fekk. li ñuy wut. ni ñu yàlla moomee. te moom ko te di ko fi joxe yàlla nañ ko gën a jox lii mooy tënkuk imaam sëriñ bi tëjal nu ko nu mottali sëriñ bi nee na ñaan dafay làmb biir ak biti nee na nawet yi nee na bu sëpp rek beneen taxaw ñoo ngi xalaat jublu ci nawet sañ na noo ñaan waaye ku nekk nawet ba nga nekkit yàlla na yàlla boole la ak nawet bi defal la ca la gën muy mucc xéewal naataange jariñoo ko mu ànd ak barke nu dugal ko ci ñaan yi fatiha alab nashara fallaxi naasi salaatul fatiha yàlla na suñu borom bi nangul nu nee na ñaan gii ñuy def ci pax mi nuy gas tiim ko kilifa yi dañ ko daan def dafa bokk nag ci secret kër gi morso bi ko def danaa delloo teraanga lu ci waay man na ko dajale ñu joxe ko ñu indi ko fii fi ko fekk niñ fi fekke pax mi noonu lañ fi fekke morso bii lu ci waay def yàlla boo ko ñàkkati mukk nay faju ajo ci biir ak ci biti nabiyul huda fi naw mihi wanti baahihi alwa allaba allahu akbar maam ahmadou ndak mooy sunu sëriñ yàlla na ko jox muy sunu njëriñ nañ ko jàpp nañ ko gëm nañ ko bëgg nañ ci fiir